ci anam ba ko soobee ñëw nañu fii tey di gunge jaamu yàlla bu ñu doon wax Mahamad bun Abdallah John koo xam ne di jàkk ci liñ koy seddal mooy ni ab jullit la gannaaw bu ñu ko juree ci lislaam tànnal ko tur wi dàq ci tur yi di turu sang wi xeyru xalqilaa ñi dool la ci ne ab taalibe la bu bëgg Sëriñ Tuubaa bu doy doyloo njàngaleem Serigne Touba doon xeeñtu ak roy euh, njàngaleem Serigne Touba gannaaw bu mu fexee xam kuy Serigne Touba ci biir xam kuy yàlla ci biir xam kuy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral bis bi tey li muy nekk bésub ayet kat lool ku tedd ki Cheikh Mouhamadul Mountakha al Bachir yàlla na fi yàgg te wér tey di bésub ayet te kenn masuta du julli ayet te gisuloo sëriñ Mountakha ca bërëb ba mu jànkuwanteeg doomu aadama yi dénk leen tey de sëriñ bi yàlla dogal na daa fattu ñu ngi ñaan yàlla pour yàlla roof ko wér ak kattan tam yàgg fi lool mu jël matuwaayam yëpp dalal fii ñi nga xam ne ñoo ko indil taalibeem bi jébbal leen ay xéwal ba noppi joxe ndigal ngir ñu waajal ko pour yóbbu ko ci këram gu mujj di baqiya Mahammed Boun Abdallah Dionne sama mag la sama wëlëre la sama mbokkum taalibe la sama xarita sama kilifa la waaye it ñëw naa fi tànku ndawal président Abdou Diouf mi àndoon ak ñun jiite parti socialiste te doon nijaayam doon wëlëre gorom son ambassade son excellence ma Massamba Sarré ñëw naa fi it wuutu fi mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk nekk ci parti socialiste àndoon ak Ousmane Tanor Dieng tey suñu njiit di Aminata Mbengue Ndiaye ñi yebal ma ma bàyyi lépp lu ma jàppoon joge kafrin ginnaaw bi moo fa julli ayet ñëw fii ngir bokk ci ñi jokk seen ñaan ci ñaani sëriñ bi ak ñaani mbokk yëpp ak waa senegal yëpp ngir Mouhamed mii nga xam ne moom lañu jébal suñu borom tey yàlla gàttandu ko ci yërmandeem atte ko ci njëgalam ak yërmandeem yéega ko barzak rasulullah mu wettali Seexul Xadim ak njabootam gi ak mbooleem wàllu yu yàlla gërëm yépp ginnaaw bu nu dikkee fii ci kër Cheikh Mamadou Mountakha ngir teewee taxawu sunu mbokk sunu mbokkum taalibe suñu xarit yi sunu lépp nekkoon kenn ku mag ci réew bi nekkoon liggéeykat nekkoon ku liggéeyal Sénégal liggéey bu rëy rëy bëggoon réew mi loolu fonkoon ko waaye surtout nekkoon du àqan nekkoon taalibi Serigne Touba ci loo xam ne ñun mën nañ koo seere ndax suñu xarit la woon mu di Mouhamed bin Abdoulaye Diop te suñu boroom moom ko fan yi ci bitim réew kon ginnaaw bu ñu ko ñaanale yàlla mu xaare ko àjjana di ko ñaanal lépp lu baax loo xam ne daana ko def suñu borom fay ko tey jii di ko ñaanal njëggal tey nii fi njaboot Serigne Touba gi teewe nga xam ne man na ne kenn desut loolu rek foog naa ne dal na am xel te day tegtale ne mi ngi woon ci yoon boo xam ne yoon bu baax la woon ñi nga xam ne ñoo ko lu gunge ci wàllu politique itam day mel ne kenn desul ñëpp ñëw nañu ndax nitu jàmb la woon nekkoon ku daa boole nekk en un rassembleur kon kooku tey moo dudd tey moom am na naqar damaa ne yoonu mbir yëpp amoon naqar nag ci taalib sëñ Bamba boo xam ne boo wóor la woon boo leer naa ñu kii taalib sëñ Bamba la boo toogee mu baxee moom da xam ne taalib sëñ Bamba ko waxal mu nit ku dëggu ku jëpp ku gëm sëñ Tuubaa bi may bi bi may ma njëkkee tooga moom restaurant bi ma njëkk wax mooy sëñ Tuubaa laa am te ma gis yenn loo xam ne ni lu ñu xamle ci njabootu sëñ Tuubaa daa bëgg nga gën maa sàmm sa diggante ak sa ngor boobu ma dégg ci yow leen ci parti loo xam lu lu lay sama xarit privé nag sama xarit lool lool lool lool dawul toog fukki fan yoo xam ne ñett fan lu wax téléphone ñun ñaar da mën naa ne jamono nekk feebar rek wax nañ ci message moo xam ne message bu daw yaram doxal man ak moom ak yàlla dama koy ñaan ci barke Serigne Touba mu xatoon sama waajur nag lool lool lool am fa mu ndax fi kër gi moo ñu boole ma am petit boole bu ñu dafa yaakaar sama maam yaroo ci kër gi parce que sama maam moo yor yaay di ko ñaan ci barke Serigne Bam fi jëm yàlla na ko dàq fi bi bésu mbégte la ci korite gi waaye comme niñ ko waxee woon rek euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne tey jii yàlla def na ñu ngi koy gunge ci këram gu mujj Mohamed nag yaakaar naa li Sénégalais yi wax ak kàddu yi nga xam ne moo gën a kawe suñu bos mënutuñ ci teg dara Mohamed ab jullit la ku fonk diineem la waaye ku liggéeyal Sénégal la moo tax tey jii am na ñu rafet njort lool ci moom di ko ñaanal ginnaaw bu ko xalif général de Mouride taxawoo euh, ñu ñaan yàlla xare ko àjjana li nga xam ne moom la doon sonn ci réew mi di ko sonn ci njabootam di ko sonn ci askan wi yàlla na ko ko yàlla fayee fii nga xam ne fi la war a tëdd tey ci suufas Tuuba te am nañ ci yaakaar lool. jullit àqan la woon taalibe sëriñ Tuuba la bu wér nekkoon nitu jàmm am yéene ci ñëpp am cofeel ci ñëpp ni ma ko waxee sànq waajuram yu baax ya fii ci pencum sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon man sama sëriñu baay loolu mu di ko wéyal li muy nekk yépp ci kaw suuf noonu mu bokkee nag Touba Daaru nam gi di yaakaaram noonu la amoon kër diine yu nekk mës naa wax sëriñ Abdul Aziz Si mu baax ma junior al amin ne ko la ma daan jox sama baay day dama am yenn di la ko jox mu ne xanaa ñu def benn chart mu ne ko charte bi lan la mu ne ko xanaa ma di ko def ci daara yi mu ne ko nangul naa la ko loolu na nga xam ne amoon na ci yàqin te ñun ñu jàpp ne ajjuma bi mujj ci weeru koor ñëpp xam ne fukki fan yu mujj yi li ci suñu borom wax ñëpp xam nañ ko mu nekk ajjuma ñu tuddee ko rasulilahi mi gën ñëpp ki nga xam ne mooy wasilaam di cheikhul xaddim bind ne wajaxtu kulli lil doo di di saa xidmati lil mu moustapha muhammadi ñun ñi nga xam ne ay dongo lañ dey ñi ngi ñaan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel. am na ñu naqar lool waaye ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax ndax boo xoolee alxuraan rek li yàlla wax na kul nafsin zaa'iqatul mawti kullu man alayhaa faanin ah, nag bis bi yàlla sàkkar mu lay gën a wan boppam ndax àddina kenn dëkku fi muy ku baax koo xam ne xamoon naa ko àddoor politique bi nga xamante ne moom la doon def si li nga xam moo jëm ci mbir mi ñu bokk muy Serigne Touba daana ma seet sama kër. ma di ko seeti këram ñuy diisas lu bare bare lu dox ci réew mi ak li jëm ci li nga xam mooy Touba. bi mujjee déggante yàggul ci biir élection yi rek déggante nan amoon na yéen bu rafet lii yàlla dogal nekkoon na candidat comme ni ma ko nekkee woon yàlla dogal mbokkoon si candidat espoli moom mu jàlloon waaye lii suñu borom tuddoon na ko parce que lii day fekk day war ñëpp ni lépp loo xamante nit war na ko def war na bàyyi xel bis bi bis bi àlla kulli du jaas te kenn ku nekk dana la ganes ak doo mën di toll ak loo man di am ak foo mën di nekk ak loo mën di toll bis bi dana ñëw si yow yàlla dina doon nekk nag buy ñëw si yow mu nekk bis boo xamante ni day fekk buy dem yóbbaale aw yiw moom nag gis nañ si moom loo xamante nii am na ngërëmul Serigne Touba am na ngërëmul jullit yëpp liggéeyal na réewam nekkoon na premier ministre liggéey liggéey bu rafet kenn mësu koo dégg ci ay kàddu yu ñaaw wala ay vrente kooku tey ñu ñëw fii di ko gunge si ci këram gu mujj fii si Daaru Manaan ci sëriñam bi nga xam ne Serigne Mountakha nga xamante ne lu baree bare daan ñu ko waxtaanee ba ci maam ak sëriñ Basiru collègue gi nga xam amoon na ko ni ko sëriñ Basiru jëlee woon waajuram yëpp yóbbu leen Gosaas kon jàpp naa ne tey ki nga xam moo ñàkk réew mi moo ñàkk di ko jàlle njiitu réew mi la président Bassirou jamaay fay di ko jaale aussi président Macky Sall mi mu doon liggéeyal mais di xam ni jàmbar wàcc na. Euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, sunu xarit la woon sunu kóllëre la woon goo xam ne waxtu wu ne euh, waxuma liñ bokk waaye Serigne Touba min bokk waxtu wu ne ñu ngi waxtaan jëmale ko ci ku tedd ki mu doon nit koo xam ne it foo ko mas a gis boo làmbee poosam wala ci biir loxoom mu dawal ko ci poosam xasaa xasaayit nga cay fekk rawatina sindiit yi kon loolu ay témoins la yoo xam ne ñun xam na ci moom ba fu ma mas a gis bi mu nekkee premier ministre ak avant mu koy ne ak bi mu ko nekkut waxtu wu nekk bu làmbee poosam li may njëkk a wax mooy xoolal sama sindiit gi du ma tàggoo moom ba ilaa yu mi kon nit la woon koo xam ne ab taalibi la woon waaye nit la woon koo xam ne ku gëm Sëriñ Tuubaa la woon nit la woon koo xam ne ku gëm réewam la woon. sant yàlla ci bi nga xamee ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne nekk suñu xarit mën nañoo wax sax nekk suñu doomu ndey ndaxte bi ñu xamanteeg léegi octobre 1976 la donc ñeent fukki at ak juróom-ñett la ci léegi ñu bokk terminal jàng ko. bokk France dem jàng fa yàlla mi dara tawul boolewaat ñu ñu nekk ci gouvernement mu nekk euh, suñu premier ministre chef de gouvernement euh, bésu tiis la waaye bésu sant yàlla la sant yàlla ci li nga xam ne moom da ko yàlla jagleel mu génn àddina bésu àjjuma génn ko ci weeru koor ñu koy jébbal boromam bésu korite boo xam ne bii korite boo xam ne bii àddina bi yëpp ñoo ko defandoo ci même bés bi donc mu nekk yaakaar pour ñun loolu nag day dañ koy teg rek ci li nga xam ne ñun moom la ñu xam ci moom li ñuy njëkk a seede mooy jullit àqan la euh, te wane na ko màndarga bàyyi rek lox yàlla yàlla rek la bàyyi woon boppam euh, lu bare bari toog na ak moom ci biirum ñuy waxtaan mu ne ma yàlla rek la bàyyee boppam euh, alxuraan la yoroon ci benn poche bi beneen poche westam bi mu yor ci du sëñ Touba euh, te nit la koo xam ne kii aussi dara nekkul ci moom lu dul yéene nit lu baax euh, ku facile de contact ak d'amitié euh, li nga xam ne nag moom moo ko dal ñun ñëpp la dal ñu ngi koy jaale donc Sénégal yëpp di ko jaale soxnaam kat yi di ko jaale magam Cheikh di ko jaale famille am yëpp di ko jaale aussi ñi nga xam ne ñëpp ñoom la bokkaloon di yëngatu ci mbirum àddina